tës tësi rek. xar ñi ko rek <laughs> taxar ñi <laughs> jërëjëf am na loo war a taxar ñi askan waa ngi ci bàyyi xel muy eh, kaay yi lu ñu xëyee Walf Quotidien. organisation élection présidentielle yi di ñëw seen yéenekaay gi di Walf Quotidien dafa xëy fësal lu ni mel ne démb nag si di kaba daanaka. opposition bi rate wuñu ko benn yoon seen i kàddu lañu yëkkate xam ne ne élection présidentielle yi bëgguñu mu organiser ko ndax dafa far noonu la ko yéen i gi di wàll fukkati te moo di apocalypse salvatrice yéen kaay gii di la tribune xëy dellu soit ci wàllu parrainage ko wax ne fu mu toll nii Amadou mu ngi cootu ci 3 millions ak 700 mm-hmm. mille parrain mu ngi la ko ndax Amadou war naa gën a ëpp doole kii di président Macky Sall mm-hmm. ndax lii nekkul ay waxi kasaw kasaw yéen kaay gi moo xëy fësal loolu yi Abdoulaye nangoog yoor yoor yoor moom dafa xëy samp bëgg xam waa Soleil moom ñan la ñuy ñan la ñuy fontoo <laughs> yéen kaay la xëy fësal mm-hmm. parce que Amadou 3 millions 782 mille parrain fan la ko mën a jëlee. question la boo xam yéen kaay gi mu ngi koy fësal ba tax ma bëgg xam daal yéen kaay gi di la soxla ana ñan lay fonto ñu la ko yéen kaay gi di yor yor xëy fësal. Euh, source a. yéen kaay gi di source a ci jamono bu fekkente ne Ba. ma ngay fësal ni am nañu ñetti millions ci ay panne ci jamono jii la waa parti Pastef ñoom nee nañ seen mili seen yéen ak seen bëgg-bëgg mooy. Mm-hmm. am lu ci toll ko ñetti millions ci ay panne wala ñetti millions. kon yéen gi ne neexul ba neexul waaye ñoom ñii ñëpp amu ci kenn koo xam da ngaa tegu ci yoon noonu la ko yéen kaay gii di source ak xëy fësal Abdoulaye. ngoog euh, leneen lu fës ci 24 heures. 24 heures yéen kaay ne euh, euh, Karim Meïssa mm-hmm. daanaka moom déposé na caution. Mm-hmm. fanweeri millions jël na ko daal yéen kaay gi nag xëy samp laaj bëgg a xam candidat boobule di Karim Wade la fas yéene ñëw si biir réew kan la fas yéene ñibbisi ñooñu la ko yéen kaay gi di 24 na euh, caution déposée Karim Wade kon seq na ab jéego jëm ci élection présidentielle yi ñëw ñooñu la ko yéen kaay gi xëy fësale ñoom militant PDS yi ne caution boobule génnul ci poste Karim Wade mhm. nee na ñoom seen jëmm ñoo ko dajale jëw ko daal di koy déposé mhm. waaye laaj bi samp mooy Karim Meïssa euh, ah. joxe na li nga xam ne ni moom moo di euh, caution bi waaye leen aussi loo xam ne yéen xëy na ko fësal te mooy sommet mondial ci wàllu jàmm mhm. dañ ko amal fële ci euh, kër maanaam centre conférence bi ñu tuddee Abdou Diouf foofu président Macky Sall solo te dafa mbubb avocat ah. di défendre réew Afrique yi noonu la ko yéen a kaay gii di la mandat xëy fësale yéen a kaay bi di l'info yéen a kaay bi di l'info ne daje moom la occasion la woon ci président Macky Sall moo xaw a sànni tuuti xeer opposition bi lée moom dafa jàpp ne ne ab réew bu fekkente ne bëgg nañoo fexe ba réew ma démocratie dëgër fa liberté am fa li ñu war a def mooy jiital waxtaan ndax jàpp ne lépp lu ñu def ci waxtaan amu si daanaka du mujj fenn noonu la ko yéen a kaay gi di l'info xëy fësale euh, Sud Quotidien felu ko yéen a kaay gii di Sud Quotidien Macky Sall ne président Macky Sall daanaka bàyyiwul dara wax na ci wàllu gouvernance mondiale mmh. wax na ci coup d'état Afrique yu bëri yi nga xam ne ñu demeeku ba ci réchauffement climatique bi noonu la ko yéen a kaay gi suñ ko te ñu xëy fësal laas euh, génn gu fa yéen a kaay gi laas ne président Macky Sall neexul ba neexul waaye fu mu toll neexul ba neexul waaye bu mu fi nekkee ba léegi moom moo sol mbubbu avocat maanaam Afrique parce que waxtu yëkkatee kaddu rek pour défendre Afrique la noonu la ko yéen gi di la sax yëkkati. le quotidien lu ñu tàttanal Afrique naka mu ngay génne solution yi. Mhm. neen daal li nga xam si jiitu d' mooy nañ jiital waxtaan. parce que lépp lu waxtaan amul rek nañ jàpp ne yokkute mënu fa am noonu la ko yéen gi di le quotidien xëy fësale. Euh, réew mi quotidien. réew ne président Macky Sall ma ngay woo rébellion. Mhm. nañ maanaam ñi rébellion du coup d'état. Mhm. nañ teg lépp ci te jéem liggéey loo xam ne naa développer Afrique. parce que loolu moo gën a am solo. am solo dafa ay coup d'état ñu la ko mm-hmm. yéene kaay di foqar ci réew mi xëy Fassal Abdoulaye. ma ngoog Dakar Times waaw Dakar Times aussi loolu xëy dellusiwaat ah, wax ci échange yi nga xam ne amal nañ ko démb. Euh, fële ci jam ñaajo muy soxal wàllu ko jàmm ak sécurité président Macky nag def na fa ab plaidoyer bu am solo noonu la ko yëre euh, mhm. euh, mhm. kaay gi ne daal président Macky daal kon mujjee naa freiné ma dem ba budget ak ñoom. Mhm. noonu la ko yéen direct news xëy fës la. soleil ñu taataan euh, premier ministre bu Pape bu premier bu Pape. waaw dana fas yéene sa mhm. ubbiteeg sanctuaire euh, bu ko jàpp ni que juróom-ñeenti fan euh, bi nga xam ne ne nañ Sénégal dafa mën yéene organiser ko gannaaw Côte d'Ivoire. Mhm. waaye Coupe d'Afrique boobu bu ñu deful ndànk dana hypothèque wu ko waral mooy budget bi nga xam woote nañ ko sport ren ji dafa tuuti lool. ñaareel bi aussi dafa am ab fantasiro doy waar goo xam dafa dox ci diggante Lat Diop muy mhm. jëwriñ ji dénk wàllu sport mhm. ak Augustin Senghor muy jëwriñ ji maanaam mi a kaay giri critique xëy fësale ma ngoog euh, stade lu mu fësal des champions cinquième journée bu fekkente ni bëgg nañu des ci mhm. euh, di mag ci Morlo moo yëkk ay kàddu wax ni Euh, ñuy wër di wax naan euh, Modou Lo dugg na Pikine am na fa presque quatre victoire nee na dañoo juum. Mhm. Modou Lo cinq victoire la fa am ki mu njëkk daan mu ngi tudd Moussa Diouf Moussa Diouf nag moo ko ci écrit Boy Niang. Mhm. deux mhm. moom la fa njëkk daan léegi nag ki mujj daan mooy amaa Baldé loolu moo yóbbu victoire ba ci cinq. léegi nee bu daanee Boy Niang deux te nee na falaa bu dañ koy mooy yóbbu sixième victoire boo xam Modou Lo am na ko ci biir Pikine. ndax loolee Pikine dina ko nangoom déet li ci kanam rawi li gën.